jërëjëf <laughs> sëñ Fallou li mu wax tey maanaam bëgg naa nga fiwi ma li mu wax nii dama koy fiwi ni dafa tàmbalee ci Serigne Touba mhm. daanal na lu seytaane ahmadu nee na dogoon kon ak demam gi olof mhm. te kon billaahi ñëpp dem niiraan yi wallaahi damay faral di wax nii ñi fi jàll ñëpp baax nanu mhm. waaye lu choisi mooy Serigne Touba ña fi nekkoon du doonoo tële wala doonoo mënut yan ba nu yoroon ya ak ab ya te attanun ko bamba ka ganya. raw gaaña hey. dëngën di wéy te tawatul balaa ya suratul axwaari la am ci bambay ka man shakka fi salika fal yu jarabi dafa ne képp ku sikki li xew mm-hmm. man yu jarabi baabi taqaru bi fa mu demoon ba am li mu am noonu ko seen sax sàmba jaaram ay tontoo nettali ku fa dem di nga am li am suñ féetu dem noonu xamul dem gi mu dem mu ne fil kab kabahu xeer lora moy li sëñ Murtala Murtala wax. nee manam la la seigne touba dem ci géej gi nee na rendi naa seytaane. ñu laaj seigne Moussa ganna ba moy wérekan bu mag mo mu tisbaru tisbaaru ci seigne bi ni tias khalimam bin ay yasmin allah inda wallahi iblis izna de tu iblisa isnaadaytu xasida gogu damay wax ni aduna war na dem ñëpp jàngi ji ko xam nga nak lan. seigne bi daf ko jele ci alxuraan. xasida gi titre bi laaya alxuraan la gu riche sunu borom ni inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun am na sama dëgg dëgg dëgg jaam yoo xamante ni du ma leen bàyyi kenn mu leen di faagagal maa leen garanti laysa laka alayhim sultaanun maa leen muccal ci iblis sëriñ bi jël alif ga ci inna ibaadi daal ne ay yëssa minnillahu inda jéewali waroon na fa mën a yem rek ñibbiwaat këram mu ni iblisa isnaadituhu biyaawali wallaahi tër naa ko tisbaar goo xamante ni jënd bu mel noonu kenn dootu ko daanati iblis ci kaw suuf. waaye day mag mu saay saay te ñàkk jom. moo tax sëñ Moussa Ka waxaat wax ju rëy jooju sëñ Touba. daanaka Touba bi amoon na nañu reyin yoo xamante ni rey nañ ci ay kuréel te yow ba fa teewee xar nga fay baax ba ñibbi Touba. te ñan ca rey ñëpp iblis a leen fagaagal. ba nu duma leen yóbbu leen. mun ko Touba bi amoon nañu xeer woo xamante ni ku lu jàpp teg ca kaw jinne xeer wi daal di lay fàdd ndegam doo sëriñ Touba. tubaab yi amoon na nañu gaal yoo xamante ni ku nu jàpp daj ca biir bu nu dawalee ba ca biir géej ga diigal la ndem doo Serigne Touba daal di ko amul fenn foo am morom yow Serigne Bamba kenn nga dogoon ak yow dañuy nasaraanu jërëjëf Serigne Touba. léegi nag Serigne Touba bu xasee ba nekk sa li Mourtala daanelee moom ngay dund. mooy lu yàlla def loo ko bañ bañ asal dana am. xam nga ndax lan. sëñ may joxate nee na pexeem yàlla gën pexeem nit ndaxam. fa yàllay fexe raw na xel raw na bët. fa muy yokkee nit ay mbañam xam du fa. waaw fi mu toll gis nga yàlla mënul mere kenn baa mu bëgg ko barey la koy noonam suñu borom bi doon na ni fii ngay toog war a def émission ñii xaatim ak ñii rëdd ci yam mhm. di fi toog suñu borom rëddoon na ni Mourtala fii lay toll mhm. ku am saafara na dem wuti ji ko ku am laar na ko wuti ji ku am béjjën na ko wuti ji du tere li yàlla yi def moo am ndax fii yàlla yi fexee yàqkat yeggu fa du diisoo bu mhm. namee yëf da koy def ku xëy gis ko fa loolu la suñu bay jaxate wax bu yàlla namee def yiw fi da koy def ku yeewu suba gis ko fa. xam nga nax lan. faalun li ma yurit léegi nag mënoo am Serigne Touba sa xol am El Hadj Malick sa xol. am Bou Kounta Ndiassane maanaam ñooñu ñëpp sax nga romb leen teg ne nga am càppaacóol ji Moustapha alayhi salaatu wasalaam ci sab xol. ñu lay woowee yow jullit nga tudd Abdullahi mbaa Fama mbaa Roqe mbaa Moustapha. Mhm. ngay am tuutub kiñaan ci sab xol. kon li ñuy woowee jullit yow bokkoo ci xam nga ndax lan premier pilier de l'islam mooy lan julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa zikrullahi akbar ay wax ni bàyyi leen nu ak yàlla te banok sharafal julli day dindi ci nit anil fahsha'i walis lu bon wal munkar ak lu nu sib gaa yaa ngi julli ba léegi di mer sëriñ si ñi fay dem bu ñu dee 15 pour cent di si ay musulman lan nii liggéeyaate ko yàqaate ko wër sosal doomi jàmbur ay musulman lañu est-ce que kon ñoom ñoo ngay julli te bu dee julli dana jënd ci yow lu bon ak lu nu si doomi jàmbur du la romb nga wonal ko fi mu toll nii ku la romb xaaja guddi nga ni jaay dina boppam ku tekki nga ni butéel lu baax foofu kon yàlla moom <laughs> lu mu wax ci sa kàddu gi nee na mbon mi ngi tàmbalee di xool nit di gis ci moom lu bon dëgg la Cheikh Ibrahima ne bon mi ngi tàmbalee ci may xool Mourtala mi di gis si moom saxaat foofu la mbon tàmbalee kon doo fi gaaw a génne ku baax ndax fi mu toll nii ku ñuy baaxal ko ne ñoo ngi wut luñ koy bonalee yawma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man ata allaha bi qalbin salim bu ëllëgee maalum yéen ñi am alalu àdduna du leen jëriñ yéen ñi bëri doom ba naan am naa ci téeméer fukk ak ñett du leen jëriñ ñu yaat yàlla lan mooy jëriñ mu ne illaa man ata allaha bi qalbin salimin du la jëriñ lu dul nga am xol bu sell xal bu salimun moom nag boo ko bëggee firi ci gàtt mooy ku nangu dogal yàlla koo dégg ñun la nangu na dogal yàlla lu yàlla def neex na ko mm-hmm. am na xal bun salim kon fi mu toll nii ñi nga dégg ñu naan maanaam warutoon doon lii waroon na doon lee mm-hmm. moo diw day wax pour convaincre nit ñi dafa indi beneen slogan mm-hmm. xoolal xol yee baaxagul bu xol yi baaxee ñu xam ne yàlla dara taw ko de Mandela koo xam ne ko da ngay génn prison pour doon président doo ko gëm mooy képp fekk ku ñëpp xeeboon ay cosaanam fal ko ba ñëpp faale ko mook boroomam. Mm-hmm. dafay boroom yëf yi nag. Mm-hmm. bu dul yàlla it yàlla yëf la. dëgg la mm-hmm. dëgg la <laughs> ok. waaw Sëñ Fall tey nit jàkkaarloo yow ne waaye Sëñ Fall yow da ngaa bon. maanaam kii jàkkaarloo yow ne Sëñ da ngaa baax. ñaar ñoon tey boo tëddee seen nekk tey di nga xam yow ki la wax ki la wax da ngaa bon. wala ki la wax da laa baax maanaam tey nooy nooy nooy imaginer loolu tey. déedéet du ma ko imaginer nen na xam nga ndax lan. yàlla nag bindul ko ñëpp yi joxoñ benn benn benn baaraam. yàlla dafa fiir ci yàllaam ji. Mhm. daf see ci yàllaam mhm. yàlla bëggul ñu kennal kenn ku dul moom. mayul kenn ku mu wax ni rek yaw cundum nga. Mhm. moo tax lu mu bind ñaar la ci def. mënoo koo bañ Moustapha alayhi salaatu wasalaam. dañ koy xas. di ko ŋaññ. di ko tuumaal. baat yi gën a rëy lañ ko wax. wallaahi dëmm rek lañ ko jiiñul. wax nañ ko at tamit noonu ay noppil da ngaa dof te ki ko wax ni jaayam la moog bàyyi ma bokk benn bàyyi. abi lahab mii yàlla di tëkku ci alxuraan lu mu def yonent bi aboo lahab lu mu bokk ak abdullahi yonent bi mm-hmm. te terewul dañ koo xas mm-hmm. mas nañ koo woo daan ni ko demal nga toog dangaa ay gaaf mm-hmm. juddoo goo sa baay dee nga juddu tuuti sa ndey dee nga ni yàlla la yónni bi muy bëgg xadisa dem nañ ba ni ko yàlla du yabal ko pauvre ak yow nii nga mel ci makka hm? ku gën a riche yonent bi kenn Euh, nit ku nekk xam na boppam. fi mu toll nii nag bu ñu tegoon fii talaa di ko fi baaxal ba yomal am moom bu wéetee xam boppam. Mhm. wéetee xam boppam. ku wéet xam sa bopp. Mhm. léegi nag nit ñi baaxal la taxul nga baax bonal la taxul nga bon. wala mhm. wax la sànq ne la bu la nit ñépp yéene woon aw safaan te fekk na yàlla pareegu ci du mën a ñëw. mën a ñëw. soo yoroon mboolem teraanga yi àdduna yi it du tax nga mën koo jënd. déedéet. maanaam da nga di jël rek mettre leen dans les mêmes égalités. Mhm. kii wax lu baax ak kii wax lu bon a yem képp ci yow fexeel ba yow. Mhm. benn boroom xam-xam bu baax dafa wax ni. Mhm. bu la nit ñi dee xas ñoo la gën. ñoo la gën a jongoma. maa la gën a taaru. maa la ëpp xam-xam maa la maa la maa la ba maa la yooyu dajaloo. nee na bul ko faare dama nga jaamu ji yàlla ba bu duggee àjjana xam ne gënu la. tey. ndax nag bëri na ko am étage. boo xam te ni ku romb da ngay di ko seetaan mm-hmm. te boo demee kër yàlla nga amu fa sàkket déedéet <laughs> na borom sàkket booy romb mm-hmm. la mu yor ci kër ci biir aljanna mënu koo dëkke déedéet te sàkket talu sëñ séréloo sànnaar bi sëñ tubaa dee dem sànno si mm-hmm. dafa ne kër séréloo lay wàcc ñun ko kat séréloo kat këram bi daa ràpp mu leen kër gi bu ràppee xol bi sëñ bàmbaa ngi ci nan defar suñu fii rek. loola waaye mën a xasee baax na. du lii du laa sëñ Fallou nee na diw ak diw du ma yilif. amul solo gannaaw ba dañ la yilif rek yow moom jarul ko coow. loolu la sëñ Moussa ko dañu ko yàlla baaxal kenn du ko réeral. ku yàlla réeral kenn du ko baaxal. ku ñu joxub jub day mujj far jub. ku ñu xañub jub day mujj far dëngal. sëriñ da koy def. murid da koy def. yàlla ki koy def def na ba sottal. kon kenn mënu ci bu la yàlla ne kii nga ni du kii mën mm-hmm. la kii la nga ni du kii yàlla da lay kii ba noppi ni la kii la mm-hmm. Sëñ <laughs> Fall kawite Baye Fall mm-hmm. jamono ji li gaa yi dundee Baye Fall ku def warta ñu ne Baye la ku def warta ñu du bay Fall boo takkul na ma baa ñu nekkee du Baye Fall boo ma jawal du Baye Fall waaw Baye Fall moom du jamono ji ak jamono jee Cheikh Fall dafa di maa yoon wi lu ma ci def. Mhm. ba yomal xiyam ku ci dind ca la. Mhm. lu ma ci deful ba yomal xiyam ku ci boole bokku ca. Mhm. la Cheikh Fall doon doxee mooy ak Mbaye Fall. Cheikh Ibra nag génnul woon liggéey ak jaamu yàlla. ñi ko gënoon contre ba doon ko xasit kenn mës ta fi mu songoo woon di xeex. kon kuy xeex yaa ca nekkal sa bopp ni ka songoon doon xulóog moom. te nee na lu dul Ibra Fall wasin na bi dégg naa ko. ña ko tagg luñ ko wax danaan yendoo liggéey hmm. fanaane root gaa ba naan xuréet laata ganaar di korkoreet moo ko xewal daawul doxi kon koo dégg muy taxawaaloo ko chemin hmm. ci boppam la nekk waaye newul ca la Serap Fall digle woon ab Baye Fall du hmm, dégg ñu ni la yu safaanoo yii lay dund tox ak naan nangam ak sàngam Cheikh Ibra Fall moo bind ci des bu murit nee na kuy tux poon bu ëllëgee duñ bokk fan yi ne dëgg la Serap Fall laa la wax mu wax téere la kon yii nga ciy gis mu négatif ku nu waxoon ne jamono dana dem ba musicien bu def clip. Mhm. dina gis ku laxasaayu ni ab Baay Faal sol caaya takk ndombay baat takk kurus. di fecc mhm. te boobu ak léegi kenn génnul kas ko. Mhm. am na yu bëri yu nu war a euh, renommé ci. na yu bëri yu nu war a yi nag ci seen bopp la nu ne. waaye fa Cheikh Fall tënku. tënku fa ak njabootam. njaboot Cheikh gi doo leen gis ci yuy doo leen gis ci ciy waye di. nit ku nekk nag sañ ngaa yeewu suba nag nga ni nangam la mhm. te nekkee ci sa naf su bopp waaye loo gis ci àdduna dafa am ay critère rawatina ak waaru Baay Faal moo gën a metti lu yàlla bind mhm. bokk na ci xaaj bi gën a tuuti ab Baay Faal bu yeewoo suba daa war a jàng xaaju alxuraan ndax mos nga ko xam gis koo xam ne ferul sax ijji mhm. wallaahi affaire bi tënkuwul ci ñàkk julleek ñàkk woor de ndax ne jiitu woon yonent bi julliwul woorunu kon dan naan dun dugg safara kon ma bu ko julliwul dem safara Abdoulaye Baye yonent bi musul kabar Aminatu Ndey yonent bi musul kabar julle julleeg wor bi mu xewé yàggut dafa am lu gën lola lu Cheikh Ibra wote muy relation spirituelle bo xamanteni da fay dox ci digënté jambi ak boromam sëñ Tuubaa jox ko di ko amadawa bu sikru min kulli ma kana muridun yuksiru ngën gi la seigne touba jël jox seerafaat sa Moussa Ka dégg nga yaa defal lampi diine gaa ya fa Touba. Mhm. yaa ko wan yoon wa jëm ca dex ga mu naane. Mhm. Seex Ibra nee na bu ma ci sëggee ba sëggi bàyyi yu ma fa ngeccit. Mhm. sëñ Touba gëstuwaat ci tasawur si daal ne afdalu maa nataqahu man yaskuru. fa kullu man nee na mooy ngën gi li nga xamante ne képp kuy dund. yaa ngi koy génne sa gémmiñ. li ma jox Cheikh la ko gën. xëy mu ne afdalu mooy ngën gi maa nataqahu lépp loo xamante ne kuy wax danga ko wax man yaskuru képp kuy sàbbaal da nga ko sàbbaal mu ni fa kullu man ankarahu ku weddi wax jii ma wax man sëñ Tuubaa fa yaxsaru da ngay perte wa man adama sikruhu mustaxdiran képp ku sax nag ci lii ma dégg sharafal muy kalimatu laa ilaha illallah fa rabihun wala nga bénéficié wu te doo dajante ak nax a am xaru déedéet te moo ne denc nu ñaari junni ci seen compte bancaire da nga mas a dégg maanaam xaru yii ngay dégg ñu naan la diw commissaire de police dafa xaru diw naa nga ma sàngam doo ko dégg de c'est parce que ruu gi la ñu jël tarbiye ko. Mhm. ba mu deex ci yàlla ba yii nii gis nii yëpp xam na ni faaneen la day jeex ñoom ñu teel a dee delluwaat ci yàlla da ngay toog gën a ñu ko bi muy dund lu bon rek lan ko <laughs> ni lan maa asaaba bi kenn war koo firee noonu inna lillahi ci suñu bopp ñun ñoo delluwaat ci yàlla. nit ki biy dund lay def na mooy day jëbbale boppam ba xam ne àdduna bii li fi nekk faanin la. waaye soo toogee ba dee ñëw ci yow convocation nga jot danga nga wuy ji. bokkul ak ki nga xam te ne dafa toog ba mu yàgg def livré boppam police daal di càmbar leen la. loolooy ak mbay fa ilahi rajiuna dafa teel a ñibbi ci yàlla. mu leer kon nag fii nag bugg fi dara. lu dul ngërëmal yàlla. ñi fi nekk di daw qualité qualité lu nu mën a wut ñoom liñ fiy dawit addiya lañ koy joxe. yàggu sax ma dégg ko naan li ñuy jox sëriñ si nañ ko bàyyi sëriñ si dañuy naxaate rek nan ko wax ak i sëriñam hal adullukum ala tijaara tunjikum min asaabin alim tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah gars yi mën nañ julli mën nañ woor tujahiduna fi sabilillah moo leen të jaayante fi sabilillahi jaayante ci yoonu yàlla chaque jour nga gis xale bu jigéen bu ni bu ni katal ci internet bi di ko laajal nangam ak nangam ak sàngam mm-hmm. ñu naan 300000 da koy faj ak 400000 mooy nangam nga gis koo ne mi ngi may xale bu jigéen 1 nga gis koo xamante ne mi ngi puukaréwu ci lu ëpp loola te du mënta faj xale bii nii watu mm-hmm. jaay duna fi sabilillah tënna leen mm-hmm. am na koo xamante ne mi ngi jarbaatam goo xamante ne ci lii ngay yëngu la yëngu mënoon na ko jëndal matériel bi yëpp ubbil ko ko jox ko départ mu dem waaye day bañ ko sox mu tekki wallaay kon watu jaahiduna fi sabilillah Sénégal dañ koy wax rek waaye gëmuñu ko Chérif Fall nag da koo def ba yegg ca laaya ja la wax bi am waalikum am fusikum jaante ci sa alal ak sa njaboot fi mu toll ku sant Mbàkke yaay moom ku sant Fall ba yomal xiyam bi am waalikum am fusikum sëñ Modou Menda bu magee sëñ Muntaxa it bu demee kër sëñ Muntaxa xanaa sëñ bay joxe ndigal na toog si kaw wallaay suuf lay toog joxe say million ba noppi xosi almet teg ko ci ni ko mbàkke bu la neexee taalal xam nga mooy lan fa dalika alladi yaddu al yatim wala lu ñu seen alal def ko ci yoonu yàlla dañu dimbali ñàkk ba noppi bëgg di julli yàlla nee na fa way lu leen musalli na seen julli yi je m'en fous soxloo ma li mooy contraire de Baye Fall mm-hmm. kon koo dégg new ci tujaahiduna fi sabilillah mm-hmm. xamal ni mooy contraire bu Baye Fall mm-hmm. koo dégg ñu la mi ngi ci tujaahiduna fi sabilillah donte kon nasaraan la boo xamante ni daf ashhadu an la ilaha illallah Baye Fall la Baye Fall mooy kuy jaayante ci yoonu yàlla loolu Baye Fall tujaahiduna fi sabilillah wax nga gis nga nag euh, yoonu yàlla du ñëpp ci mën def seen ñàkk. dëgg mm-hmm. am na koo xamante ni bokk na ci parrain wu bis bii nu jëm Mourtala di ko def. Mm-hmm. te du fa weesu ñaari junne wala ñeenti junne. Mm-hmm. te tànn beer gën koy tuddee fukki junne dafay def boole ko def délégation. fii loolu danaa ci tontu waaye am na lu ko gën a yées fii jamono toll. sabar goo gis ponk lu magum jëm ngay gis ñu ne mu organiser sabar. <laughs> ay ponk doomagum jëmm ñooy sañ sa dem toog te dégg gu ma ku leen yedd déedéet te maa ngi dégg kuy yedd doomam naan ku lu tax ngay doon bay fal léegi ngistal googu fi mut laa wax fa yam mooy fa nga ko defee fa la yam mhm. te nag ña la cay wax jërëjëf bu subaa ñoo def yàbbon yaay yées nga dëgg wala Cheikh Abdoulaye wax ni mhm. kun ni jërëjëf baat bu ndaw la waaye xam nga la nga jëf na mu toll. du ñëppay jël seen alal dem ci yoonu yàlla de. yàlla dafa segg de. yàlla dafa segg. ndax nag dafa am ñoo xam te ne dafa am lu mu leen di xaare am na koo xam te la la ko safara jëngee. bari yàlla ku yàlla jox wërsëg danaa na mu duma ëllëg bariwul jox wërsëgam koo xam te ne da koy bokk ak jàmm yàlla yi. Hmm. ndax xam nga ni alaaji hmm. ji li mbay. Hmm. mosul sol jasineer déedéet te ba tey boo demee paleem ba da nga koy seetaan tey la gën a barkeel mm-hmm. ñooñu danoo yoroon alal ju leew mm-hmm. am na waxtaan bu ma def bu yàggul mm-hmm. koo xamante ni bi ngay am 18 ans nga tàmbalee fayu salaire boo xamante ni yàggul 80 000 à tey 30 ans ñu ni euh, milliardaire nga na nga xool foo jëlee alal bu fekkee ne yaa ngi fay ndox ak courant di feebar di faju di lekk di naan dunduk doomi aadama bu dundee 60 ans wala bu dundee 80 ans. Mm-hmm. ci diggante nelaw ak yeewu. Mm-hmm. lekk akub mm-hmm. ay besoin 20 ans la ci am jox ans la ci am yu besoin jox ci 2 ans yoy non. mom mënu ci liggéey ay milliards. xëy na émission du ko maté pour ma la ko faram-fàccee. wax <laughs> am ngi wax solo. gis nga bi bu ni dafa 8 heures ci suba. xey liggéey ji ba midi. mu def pause. wala ba une 1h. mu def pause ba 3 heures mu de 7h ou 18 h mu wàcc. Mhm. pollution Ndakaaru beeg embouteillage bala balaa mu yegg këram 21 h mhm. journée bi lu mu ci jox yalla mhm. dara bu ci dindee temps de lekk ak naan léeg-léeg fayum boru julli mom kep kepal lay don balay temps ba di ko may bu ko yaram wi yëgee deug deug dëgg nelawaat na. kon nelaw na 8 h de temps. 22 <laughs> h ba 8 h ci suba nelawaat na ay temps. kooku bo calculer diggante liggéeyam akup nelawam. joxe na ci dundam jëpp kooku fu mu mën a dencee loola la muy fayu bu dee 1 million la par mois bu ci fayee ndox ak courant képp ko ci yàlla booleel moo cee jur warul denc 100 000 francs mm-hmm. donc mm-hmm. doomi aadama suñu borom dafa nu mu ko nu mu ko bindee hmm. xuliqal insaana min la yàlla wax hmm. maa bind doomi aadama ci matadi hmm. mënoo fee complet nag ba jaarale say mbir ci yoon ba denc loola nga gis koo xamante ni bi mu commencé fayu salaire bi mu doonee monsieur le maire la bu gannaaw subaa gis ko mu tabax étage bu jolli jolli rakam yi tàmbalee doxantoo oto ñu naan non bu leen leen añaanee barke dugg seen kër déedéet <laughs> barke bari la danoo wuute danoo de barke mooy loo xamante ni boo fi jógee ki koy donn sax du raaf ko du wallaahi. du raafta du dus. Mhm. loolu mooy li Sëñ Tuubaa defal njabootam barke la leen bàyyal. Mhm. dañuy tedd ba yomal kii mhm. alal ji nag ngay dégg maanaam ñu naan diw dem na seen maye na nangam ak nangam ak nangam sàngam. ah. a yaidukumul faqra wa yamurukum bil maaruf association la boo xam ne Iblis a ko jiite. ay ñooñam rek la cay yabal. bari yaa na ku cay dem. bàyyi luwul ndeyam junni te bu demee baatara lu ëpp ñaari junni. bëri na. man naa tudd ay tur de xewoon nan fi de ban tuddee leen. waaye tuddee Fallou tuddee bi tuuf leer. yaa ngi dégg. jamono doxoon na ci ginnaaw ñu naan sëñ diw wëndeelu ak seen jiw baatare. baal leen sax kër gu ñu dëkkee. wallaay. àdduna boo ko jàppee jàpp la. Mhm. sëriñ Sadio mu baax mi nee na ñett gi nii. Mhm. ku ko topp. Mhm. da nga daw ba sonn doo ko jàpp hmm. waxtu woo gëstoo gis ko si ginnaaw hmm. mu ni sa takkandeer boo ko doon dàq doo ko jàpp hmm. mu ni jigéen boo ko doon dàq doo ko jàpp mu ni beneen muy alal loo ko bërile am soxla gu ko te xamul ni doomu aadama li tolloog sa soxla la yàlla jox mu ni jigéen bëgguñu ko tardé te ku nu dab tardé la te kuy dem rek lañu bëgg te waxtu wu la dabee dem lay tardé xam nga lay wax diw ko yoroon. Mm-hmm. waaye waxtu wu gënee mool rek la gën a mool yor ko. <laughs> wallaay. yow mi muy wooyee moo nite la papa chéri nangam ak sangam. Eh. boo faatu woon tey 3 mois plus tard maximum 6 mois góor ni yow donn ko bu naan ko góoroo góor yàggul xam nga ne góor gu mel ni yow am na. kër gu nit di sonn di ko tabax. Mm-hmm. xamul ni mi ngi koy tabaxal sëñ Fallou jàppandal mi ko war a donn mm-hmm. bari kuy denc ay compte bancaire xamul ni am na sëñ Xaadim mu ko jabaram di ñoñal yi mooy nañ joxe suñu dund ci yoonu yàlla waaye du ñëpp mën a dem ci yàlla ndax dafa am ñoo xam ne iblis daf leen hmm. hmm. ko siyaare ji mu muy muy waxtaan Cheikh Thiouna daan ni ko hmm. iblis bu ñëwee ba Ndakaaru comme noonu mu waxee dafay def nii rek daan nit ñëpp tënk naa leen nee na jàll dem <laughs> dëgg la <laughs> dafay dëgg la bu ñëwee ba jam day def nii rek nii ah ñii moom tënk naa leen nee na dëgg la dëgg la <laughs> yàlla taw bu amee la nag. Mm-hmm. kër yëpp lay tooy. Mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne ndox mi du leen laal. Mm-hmm. loolu say milliard. Mourtala di toj bas bi. doo ko ko jox. c'est parce que sa alal warta dem ci yoonu yàlla. te sëñ Tuubaa nee na Mourtala mi koy laaj. ak fàllu mi koy joxe. lu ngeen gaaw gaaw ma doxali sama tànk ci diggante bi doxali sama loxo ci diggante bi. nga yaakaar ni maanaam fi mu toll nii maanaam benn xaadim ngay day yóoxu rek nga sànni ko sa ñeent fukk mhm. mais Tuubaa yi xam nga lu tax ñu barkeel ko mhm. dërëm yi nu mën a saraxe dañ koy joxe ci seen biir xol la jóge te dafa leen lew wallaahi ba daana ku lay tiim di la baatare ay junni junni xam ne dóor la mhm. ba daana ku ñaan ñaan gi demul fenn boobu leen mi ngi ñaan yàlla tanaan gisuma dara day lekk riba amaana sax bañ koo xam ay ka koy jox lewu ko ba mu mën ko koo jox fu ñuy mujjee tawat nafaatuna tawat bee gaaw o oh, sénégalais lekk sénégalais yee ko liggéey te fekk na ko tabax kër ba kër gi tiim ko ba ñëpp di ko yéemu mur yëpp a koy rëbb lii sëñ Moussa Ka bind na ko bu yàgg wallaahi na ne àdduna fi la waxoon na ni maa ngi koy déglu léegi ci yoon bi bi may ñëw ci làmmiñu Baye Ndiaga Diop yal na yàlla dolli leer bu newee ba ca ginnaaw ba ca kanam Sénégal wala àdduna ñoo ngi faale kuy fowaka wangeetoo ko tëgg ko fecc ñoo ni la àdduna di faale te ñu ci jamono ji هو هذا زمان أقباح الزمان لكسرة العصيان في البلدان بلدان بندجة وقتنا آخر زمان لكسرة تبا وخي يب فين لفين طالوني وخان نوامير جل الناس للنصارى بولجي ينجي قيد أوتي جل النصارى أنسي ويلو اللي من ماجا إلى النصارى ويا لا دارا للفخل أو تسكرة فلا وخان إلى جمعنا دارا لنبا أفريكيين يك تيغال قد دم خالي بوخا من تني أمو فيتو سنغو خير أم فيتو يك تيغال دم والله كل واحد عندهم كم من وقلة الحياة في سبيان وقلة الحياة في النسوان دينا قسم نحكي كرسة تجونا يجوري كل واحد عندهم أنا دارنا خبرة نسبان كلهم جور بس أبتوا يجوا جار كل واحد عندهم أنا دارنا مجور نان جاكل ما مسلم من وقلة الحياة في النسوان كل واحد عندنا جيجن دارنا دم با دي جور تدوك وياد دوك نكلينا صورة بخو كوكو واحد من الخال التنبي تبري أنا يومي في كرتي كسرتم كعبة سبيكر بس أنتوا بند أفهم من نصام بنسات daal di nag haza zamanu aqbahu zaman li kasrati l isyaani bu métti lay doon mooy yàlla gi fépp lay ne hmm. fi mu toll nii fi yonent bi alayhi salaam dëkk hmm. ak fi ñuy jaayee sàngara di jaay jigéen commerce jigéen matul 1000 mètres hmm. fu gën a tedd makka ñoo ngay tabax ay estade yoo xam te ne dañ fay carte xaalis kon Touba Tivaouane dafa tax ñuy wax ñaata murita lay romb màggal tubaa dem pour deux doigts ji ñaata dal ngay dal ñu naan dañoo sàcc sama liw ak nangam day am Touba day am Tivaouane day am Ndiassane day am fépp mhm. fam doon fóotit yi lañu dem léegi di naan ji petit kuy man di mhm. ak kuy set moo tax faaw ñu delloo mbir yi fa baawoon bu ñu delloo ci Sarafa mbir yi du leer. dëgg la dëgg la du leer bi nga wax si borom daa waaw moom Thierno borom daaw mi ngi mujjee génn rek. waaw sant ko wax na ma. waaw waaw loolu dama ci dama ci wax ma naan jullit laa julli war na ma. Mm. day dëkke tooñ bëtam du tàggook rangooñ te foo ko fekk lu nu ko jiiñ bul ko ko miimal ndax du murit. Mm. sa ndey ni jot ak sa baay ñu di la njoñ ci say nijaay xam nga ni lii kat ngalawaay yëre dikku la waaye du murit. ku yaruwul du mënu far ku yaruwul du mënub jëkkër ku yaruwul du mënub sëy waxuma la ak di murit. Mm. ku la yarul rek la nax. wax nga dëgg. divorce yu bëri yi lu tuuti laa ciy tont dara waral ko góor ñooy waxatul dëgg. <laughs> ndax booy doxaan nit digal ko lu ne <laughs> di ko lu ne am ñooñ sax dañuy àbb costume dem doxaane ci am ñuy luwee oto am na ñoo xam te sii da leen wax ni mécanicien lan wala menuisier <laughs> te ci métier la ñuy noble seen nit wallaay waaye ñooñu it ña leen tooñ mooy mm-hmm. ña seen i ndey seen i ndey gisuñu lu dul alal góor bu yeewu bu ko xamit day dem wan leen ko alal après mu nax leen di ba tey jii góor ñi la rek mm-hmm. suñu tàmbalee wax jigéen ñi dëgg rek léegi divorce dootul am waaye jigéen ñi ñoom it ñu wàññi seen i bëgg-bëgg muy jaaw bëgg-bëgg yoon bay <laughs> yaroo ci sa kër bàyyi ci mbaxalum guddeeg bi ñebee guddi bëgg sëy si ci kër goo xamante ni da ngay exiger pizza <laughs> hamburger gis nga nit du complexé mhm. mhm. ndax gi amaate yëpp góor ñee ko waral bu ñu tàmbalee wax dëgg yëf yu baax mhm. waaye jigéen ñi ñoo complexé ba fi mu toll nii maanaam ci seen biir complexe la leen gars yi di fekk di jouer seen jeu gis nga ay classe su Lille Pro gii boo leen dégloo <laughs> waaw oh, waaw suwaay xam na li may wax. classe boogaa gi. classe boogaa ma bàyyi yow classe googu ba leen dégloo. Uh-huh. non dañuy football ci sa tànk dañuy xam sa match. xam ci lan nga aaye 4-4-2 ñoom ñu ñëw joué 4-3-2. Uh-huh. jël ay réserve def ci ginnaaw flan yooyu lu ci rëcc ñu dugal la ko après nga naan non dañuy changé jigéen rek fekk na yow sa bopp yaa gëmul sa bopp nit bu gëmee boppam day dox ci dignité rek. Uh-huh. safar wi nay mécanicien. na la leer ne mi ngi xëy di liggéey ji rek jàpp ko. xam nga ku bon. ki yow tëdd ni ñett. wallaay bi ma ci gën a metti nag bu tëddee ba di bu jógee day laaj café <laughs> wala mu gën taxaw ci bopp koñ bi di wut ku ko desal kaas café su paree mu ni Baye Fall la te Baye Fall noobul la nee na. noobul la noobul buy def nii. <laughs> talal loxo de. wala ah. Baye la spirituellement Baye Fall noobul la. Mhm. verbalement. Mhm. waaw damay damay insérer rek li sëñ Fall du wax. ndax keroog dama seetaan benn vidéo muy wax ci kàppu mi nga xam ne moom moo nekkoon gouverneur à l'époque. Mhm. ngay wax ni dafa tuddee Cheikh Ibrahima. dama demoon musée historique ma gis. mu bind ci Cheikh Ibra mm-hmm. mu ne Cheikh Ibrahima Fall est un fin fond diplomate remarquablement intelligent et beaucoup de provenance pour les autorités mm-hmm. maanaam loolu dafay am lu muy wax ci maanaam Baye Fall Cheikh Ibra mm-hmm. maanaam ci royuwaay bu ñu ko war a toppee nekkul sax loo xam ne lu muy wax la boo xoolee Cheikh Ibra selon nu muy doxee rek mën nga ci roy sukkandiku ci loolu te loo sonn Baye Fall mooy ki nga xam ne moom daa bàyyi lépp faale si faale yàlla abdullahi te si jës bu murit bu mu doon wax sànq Cheikh Ibra dañ ko dañ ko laaj ci dañ ko laajoon ci Baye Fall nan la war a doxee mhm. mais dafay wax ni mhm. maanaam ab Baye Fall ni mu waree doxee mooy del dëkkee si kar foo mën a nekk mhm. di def lu baax saa yu xëyee wekku la mag mooy sa wareef yërëm ko ko sa sarax ak ku mu ku mu doon moom nga war a def jox cër sa baay sëriñ bi moo la ko diggal yërëm sa ndey moo koy dëggëral dégg ko wax ju ñaaw donte sax du yow. Mm-hmm. boo ca jotee kurpañ sante ko bambara. Mm-hmm. gàttal sa tànk. Mm-hmm. gàttal sa làmmiñ dana la musal. maanaam Baye Fall ci loolu la war a dox te loolu nga xam ni ci Baye faal ci loolu la war a dox critères yooyu génnul jullit. kon maanaam mun nañu wax ni sax doon jullit simple. moo gën a yomb ko nga doon Baye Fall. te nit ñi dañuy wax ni sax du intellectuel Cheikh Ibra Fall jaahil la. rapport bi jëlee Serigne Touba ci loxo nasaraan bi Cheikh Ibra ko lu jënti. foofu dof yóbbu da di sëñ Tuubaa toll noo xamante ne ku làngoog moom rek. Mm-hmm. saw njàng ak saw xam-xam ak saw daraja réer la bu dee xam nga sëñ Tuubaa. Mm-hmm. rapport bi jëlee sëñ Tuubaa ci géej gi. Mm-hmm. teqale koog nasaraan Seex Ibra Faal la ko lijjanti. ndar gu njëkk ga xam ne ñooy les premiers civilisés. amu ci woon xaritu como. ay maam askamara ñoo nekkoon xaritam. ay. André kadd mii ko tuddee. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima Fall kaddu xam ne dafa naan. Mm-hmm. ñii mag ñii. Mm-hmm. ay bu yor mag naat. ñooñu xam nañu sharafa. donc mbirum Baye Fall moom bu ko def waxtaanee fi ñëpp xam nañu luy Baye Fall. xam nañu luy Baye dafa nekk loo ko tilim tilim loo ko ak lu bon lu dañu jëm ko euh, fuuf Cheikh Fall waaye Cheikh Ibrahima moom mooy li nga junj léegi. te dégg nga yàlla boo mën a dégg nag tuuma ju dëgg mooy tax góor yegg fa. te dinaa ko mënoon fenn taw Cheiba xam naa ne sax na taalam bi noir et la sol. Hmm. sama nijaay mu niiru nettali na ma ni ma maam Tafsir Omar Thioune wax na ko ni ko Cheikh Ibra Fall la mu doon sol du woon noir et blanc. Hmm. baxa la doon dugal ci biir jël palmaan teg ci kawam. fi hmm. mu toll nii bu Mourtala mi sañse woon baxa palmaan nga xam ne tey la gën a sañse. loola du xewi. du xewi wallaay palmaan du xewi. njool ci kaw di mesurer deux mètres virgule quatre. te ñuul kooku bay briller. fees dell ca yàlla. te yëg yi xew kooku du woon mbaf de déedéet Cheikh Ibra du booy ci grand yi mbag yi mag yi mag yi la bokk mooy grand u grand yi waaw ma nga noonu sama xam seet na ci yow gën a bëgg xam nga ñun moom léegi da nga réew sa problème mooy yow léegi da nga waa jégal naa la yow am nga droit star <laughs> maanaam xuloo ci plateau bi waa du ma ko wax dara star bu ñëwee boppam gëm li bëgg li muy def eh. ah non man man man gis naa Mourtala fi mu toll nii benn man damaa jàppoon am na benn musicien sax bu may nuróon ni muy kan <laughs> non mais xam nga barke borom daaru da nga <laughs> mais loolu dama ci fier. est-ce que kii li muy def réewoon na la. mais mais daa bëgg li muy def gëm li muy def ñeme baatam. xam nga yow man mi oh, jàngul école. non dajawaat. Fallou yaa ngi wut sa bopp tey su ma wàccul léegi mel benn soxna suba boo xëyee di ko takk eh. loolu moom wóolu sa bopp la <laughs> ah wóolu bopp su ma la na soxna suba boo xëyee di yónnee gubé ji non bu ma may nax du man man wala mo bi na fee il fallait que ñu comprendre nekk ci benn jamono ju xaw am nu mu demee mhm. te danoo am mission mhm. yonent bi ni ballighu anni walaw bi aaya na ku mhm. nekk jottali donte kon benn kàddu la te suñu mission c'est de montrer un Baye Fall modèle mun nu fi woote lu Cheikh Fall wootewul woon كان مونو في انكارن لو في شرفان اندي ولو هور مي لي نو تي بوجا بوله مو تا بوكون نين ني ديف كونترير لولا مان سانيو ما ام باس بو خامتاني دان ما فاي خار غير شيخ ابراهيم ما خول لو ياما ماين لاكوي ديف لاما غنا ريس لا لاي سول اي ديغ سان ني نان نو جاز نيرا يومب ليكي يومب غول لي ميتر 12000 لاي دون تا فوكي ميتر لا سول غام كوي سانتي شرفال تا تاي ني ما دكلون ديغنت 2009 ب 2000 خامنا ني سولوتوما Hmm? damay am kersa fi mu toll nii léeg-léeg pour sol oh euh, ñu comprendre ni. Hmm. su fekkoon fuseau la ñu sol ñun ñett ñëpp toog fii. Hmm. boole ko kuy bëdi. li nu sol bu mu intéressé nit ñi. li ñuy ballal. na la na la amal njëriñ. daa am benn borom xam-xam bu nu joobee wax ci ay wax yu ñaaw. am kenn ci ay soppeem génn daal ni lu ngeen ko mën a waxal mën naa ne. waaye la ngeen koy waxal safunu moom li muy wax ci yàlla ak yonent bi sëriñ bi moo nu saf. Hmm. fa la esprit war a toll. war a hmm. exactement. te xam ne ñun ku ci nekk da nga gàddu benn mission. Hmm. war cee jàppale yonent bi. mooy jottali. te du ñëpp la yàlla dogal ñu war cee micro wax am na koo xam te ne ba yow ma fi am ci derrière caméra bi lay taxaw. adna du yàgg ba mu toog def émission. boo ko defoon tey jii dafay wax njombe lu ko adna di xebee. c'est parce que du mun na gis ku ko yées koo xamante ne li muy def sax moom mi koy filmé xam na ne kii du professionnel. Mm-hmm. mais kooku da koy def même pas un mois nit ñi apprécier ko. Mm-hmm. nit ku nekk su defee li mu war a def. Mm-hmm. ku ko nangoo ku ko nanguwul yàlla xaroon na cëm la. te nag bu mu la ndax lu mu dee dee quatre-vingt mille quatre-vingt personnes topp na la. Mm-hmm. wala plus cent. Mm-hmm. tey ji bu fekkee am nga groupe WhatsApp boo xam te ne mm-hmm. am na lu ëpp su fekkee ne amoo ko it xam nga ne am nga lu ëpp quatre-vingt. soppe yonent yàlla noox. quatre-vingt personnes ñoo ko gëm. te yàlla ko yónni. xam nga ndax dégg fi may wax. baax a baax yonent yàlla noox. yàlla ko yónni te quatre-vingt personnes ko gëm. te bokk na ci ñu gën a gudd fan. dund na lu ëpp ñetti junni at donc continuel xam nga ndax lan Sénégal gi ñu nekk ñett ku ko fi def doo dem ragal ku la critiqué bëgg lu neex doomi aadama ak complexe ci sa jëmmi bopp nga yeewu suba gis gars yi di sol peew rek nga dem sori ji peew <laughs> da gis xale bu jigéen boo xam ne sax tànk yi day lunk mu yeewu suba gis combinaison xew rek mu sori ji combinaison bu la kenn yóbbu ci aaram doxal ci sa aari bopp mm-hmm. Mm-hmm. man sama slogan la su ma neexee takk ay ndombay baat man su ma soloon short sax ku ma seen dana wax Baye Fall bi tey jii mm-hmm. sa waaye mii mën na maa doy seede fii ci saalam bu ñu doon entraîné sax da nga xam ne Baye Fall yi entraîné si salle de musculation la maa ngi fàttaliku bis soxna nasaraan ndax maa woo ne ma ndax duñ ko yedd muy solo correctement. am na ceeg njaboot. am bis sax dama ko xam naa ne lii ab ab sànni xeer la dama ko may benn laxasaay. pour maanaam mu bégalee ko mu génn xotti ko ba ci doq gi fii xotti caaya ji ba fii. booba bu naxee nii la kii nu romb nii cadre la wala bopp bi lii wa ci nekk doo ko gëm. noonu na ko jigéen ji ba mu. du sol dàll def tànki neen te buñ la waxoon fonction yi mu posé te da nga xam ne lii mooy Baye Fall mooy li ma yàlla defal doy na ma sëkk léegi naa jaamu yàlla ci biir jaami yàlla bi xam nga mooy lan àdduna fépp fa lan war a taxaw mooy kenn ku nekk war naa jaamu yàlla ci bañ a wax lu ñaaw jëmale ci kenn maandu ci jëfi jàmbur gi ndax ku yàlla càmbar nga rus sëñ Moussa Ka nee na sëriñ boo lëmbaajee mbooti biiram day teex kon ku ci nekk fi mu toll nii na càmbar boppam ci critiqué boppam ci sëñ Tuubaa gi bokk nag moom la ñuy waxtaane mm-hmm. li nga xamante ni daf cee ñaaw ba ñaaw ci mm-hmm. ku ko waxul complice nga mm-hmm. day mel ni mbiru góor jigéen yi xew ku ci waxul complice nga bu dee wax kat nga te da war a xam ne yàlla leen njëkk rëbb nga dégg la man waxuma ci yooya sëñ Tuubaa laay wax duma ca génn kon la sëñ Tuubaa doon défendre défendre ko ndax sëñ Tuubaa musta génn l'islam leen Moustapha nawaytu maa yu jaddidu mudwaani wa ahmadu est-ce que dafa indiwaat beneen diina ju bees nee na damaa yeesal si waat yeesal foo ko dégg lu fi nekkoon la su la neexee nga ñëw nga ni fii dama koy peinture rose da nga yeesal si waat fii rek am na kuy ñëw keneen ci sa ginnaaw day wax ne émission bi mu doon def baax na mais man dama cee bëgg yokk génn ci mbedd mi damay dem fekk ci gars yi seen gox fii kenn def fi lu nouveau de. loo fi def defit la fi. loo fi def am na ko def ba noppi. loo fi wax am na koox ba noppi. <laughs>